bon maa ngi lenn ci joueurs yi ñu ngi nii toog lenn ci supporters yi ak staff bi ñi ma jot a gis rek ma daal di waxanteeg ñoom mais ci ci ci ci staff bi laay tàmbalee mais gannaaw naka ngeen dundee derby bi tey diggante jàmbaat ak lakkale ñu gis ni lakkale dóor na ko 2-0 yu gaaw naka ngeen ko dundee préparation yeeg yëpp. asalaamaaleykum. Mhm. avant tout di jaajëfal ñëpp. Mhm. jaay jaajëfal ci jàpp ak jàppul ñëpp. Mhm. seen ñaar seen taxawaay bu baax a baax. te match yi ñun pour ñun nekkoon derby quoi ñoom ñoo fi boo def derby rek. baadu ñoom ñoom du mas. Hmm. ñoom mas. ok. Modou Gueye ak Fara Ndao ba ñooñu boole ak ñoom rek. dèjà ma ñëpp créé loolu te loolu loolu nekkoon masu quoi. Mhm. ñooñuy woor ay am nañu Modou Gueye am nañu jiw am nañu jiw ñun liñ gën duñu loolu ñu luñ liggéey mooy entraîné. Mhm. defar suñuy jeu préparé physiquement moralement techniquement bu ñu demee duñu am benn problème. Mhm. mais ñu am nañu Fara Ndao sonn wuñu tey duñ ko duñ ko baaxoo duñ toog fee duñ baaxoo Fara Ndao. dëggantaay loolu loolu loolu masu quoi pour man. loolu loolu dañ lay ñëw suñ ko di ay trois heures matin deux heures matin dañuy créé ay histoire. dépassé ñu ko ñu leen solo trophée bi am nañ ko jeexam quoi mais tey damay gis ne par exemple bu ñu doon xool diggante lakkale jàmbaar comme ni nga ko waxee Fara Ndaw Modou Gueye dañ daan gis chaque fois dafa am tension bu garaaw bu ci doon am mais ren dafa mel ni fair play am na ci affaire bi d'après ni ma ko gisee parce que daan na gën a dorewaat te ren demeewul noonu lu lu indi loolu tamit takkuñu ay farandoo ñuy woo ñu conseil bu jarul histoire bu ñu duggee ko ñu bàyyi la ñu def leen ne bu yàqul rek amul problème dix ans loolu amul problème quoi. Mhm. ñoom ñoo bëggoon loolu rek pause dañu sa bëggoon rek am na ñeen pause boobu garaaw. Maadou kon daal léegi fi mu ne farandaw moom doon na Modou Gueye tey. farandaw doon na Modou Gueye deux heures toog da koy xaar. déedéet kay waaw te leneen lu mu koy xaaraat yàlla. fu mu koy xaaraat feneen foofu fan la. xam na ko. Ah. xam na ko kon à suivre lay doon. kay bu ñëw bu ñëwul jébalu si. Ah. jébalu ah. loolu loolu du ko neex de. <laughs> ay ca na ko daal mais mu mel ni ñu ngi gis sam ñaari joueurs ñi ngi taxaw sa wet noonu tamit ñoom it ñu présenté wu wax tamit ñoom naka lañ dundee tamit tey final bi macha allah rabi. salaamaaleykum maa mm-hmm. mm-hmm. moom lépp war def def na la. Mm-hmm. entraînement yi ñoom joxe lépp li am ñoom tamit ñu ko gis suñu coach yi ñëpp ñu gis station bi ñoom tamit def nañu war a def lépp. ñoom tamit si daa dem nañ ISRA a def lépp waaw. te yàlla def ñu doon jàmbaar dégg nga xam nga ñoom ñoo ko def derbi de ñu ne ma def ñu ko derbi ñun suñu. kon ñu xam ne ñun waay waay bu sëfloo. day mhm. dal seen kaw def li war a def dugal ay biir ñëw taxaw. waaw macha allah. merci grand yow looy wax ci match bi. di nuyu ñëpp. sant yàlla bu baax a baax. match bi moom wax dëgg yàlla préparé ko bu baax te ñoom sax seen biir xam nañ dem nañ ko fóor rek suñu yàlla. léegi lan mooy la mooy li nekk ci seen kanam actuellement. gerte moom kay. gerte rek. échange waajal départemental bi. waaw ah, ngay jëlee mais gars yi dañ doon wax ne tey match bi Modou Gueye maire ji de Thiaroye Kaw la contre Fara Ndao le jeune politicien de développement bi nga xam ne moo ne ci biir ruq bi nu ko gi nu euh, xam nga Gueye. Mhm. tey yàlla na ko. da koo xawoon lan laa xam loo ci digg sax da koo xawoon dimbali benn côté mhm. daa ñëw stade Rosier vétéran jàmbaar mhm. ñoo suñu vestiaire ñoo fu lañ ah, ñoo ko jox ndox bu jàpp ndeysaan mu jullee ko hmm. peut être bu ko génn du ñaanal équipe dina ko a doo xool lan la xala gañee jàmbaar la yàlla gañee <laughs> est-ce que <laughs> ñoo ko nappee ko nappee waaye kon loolu la quoi tey fair ah, play daal am na foofu masha Allah te bésu fay bésu bésu gañ bésu ñàkk waay dëggantaan dëggantaan <laughs> masha Allah waaye mais hmm. eh, eh, ñoo entraîné si rek ah, hmm. la dafa ñoom ok dañ koy jël incha allah mu ñu ñor yal na yàlla motali ko mais ñi nga gis Fara Ndao mi nga xam ne moom la gars yi doon wax ne moo dul final tey mi ngi door a si mais monsieur le maire yow da ngay ñëw fi ne yow itam gannaaw tey final bi yàgg daal na ñëw mu wax ñaar le maire euh, Ndao ñu ngi lay nuyu sa maa ngi lay fay ñu lay ziare bu baax a baax macha allah waaw di la wax félicitation encore ci final bi nga xamante ni tey doxoon na ci diggante Lakale ak Jàmbaar Euh, ci wàllu cadet yi mais mu mel ni gars yi dafa am benn benn benn benn benn kii buñ ci dugaloon quoi ne tey Euh, monsieur le maire Mamadou Gueye ak euh, monsieur le maire Fara Ndaw la woon tey yow noo léegi noo jàngatee loolu ba pare monsieur le maire. mais loolu loolu man ça me fait rire quoi. mais effectivement. Mhm. nous nous sommes nous sommes victorieux. Mhm. ñun fu ñu dem dañu am victoire. attention bu ñu ko gëmee. Mhm. c'est-à-dire ñoom gëmoon nañ ko ñun ñu gëm ko mais yàlla tey ñun la may ndam. mais ñun damaa seetlu ñun lu ñu gëm rek dañ ciy am. alhamdulilah te incha allah zonal lañ jël nii. ñaan nañ yàlla dem jël départemental ak exactement mhm. pareeguñ de mhm. pareeguñ donc waa jàmbaar maa ngi leen di encouragé suñuy frère la mhm. ma Modou suñu frère la mais suñu ko mënee tamit nañ ko wax ñun ñoo ko mën a loolu moom leer nañ ñu tey <laughs> deux zéro lañ ko lonk xanaa neex <laughs> jaajëf léegi may le maire bul dawee noonu <laughs> waaw ñu ngi gis nag fi mu ne wax dëgg yàlla échange yooyu nga xam ne mi ngi suñu kanam donc 2024 bientôt dans quelques jours moom fi mu ne ñu ngi commencé wax ay heure lan mooy programme monsieur le maire Fara Ndao ci 2024 bi à travers sa propre commune. che Saam nag dugg nga ci gàmm bu grave. waaw si c'est normal. léegi gis nga gàmm boobu. Mhm. joxante waa rendez-vous ci terrain bi. terrain école 12. Mhm. li ñu bëgg a def fa lañ koy defee. incha yi dinañ fa nekk yow fa mhm. incha allah. ñu joxante rendez-vous très loolu baax baax na waaw merci beaucoup. Eh, mais gars yi benn cri de cœur boog waaw yéen zëngal bi. <laughs>